salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki groupe sëriñ daara yi seen mbokk Mouhamadou Amine Sall ñu ñëwaat ak yéen ci sunu darsu tajwid ci ibnu barri ñu ngi ñu ngi commencé woon ci baabul madd nekkoon ci muqaddima bi waxoon nañ leen ni euh, ñu ngi commencé bayit 63 63 bi lañ nekkoon ci la ñuy commencé 63 64 Euh, yaakaar na photo biñ doon bi doon bañ yaakaar naa ni mooy gën mooy gën maanaam di photo dars bi ndax ci ngay mën a tiime ci nga mën a tiime ci téléphone bi di déglu waaye bu fekkee téere bi noonu boo ubbee téere bi son bi du ñëw ci yenn téléphone yi mais boo ko photo nii nag dangay ngay jàkkaarloo euh, bind bi di liir son bi moo tax dañuy obligé ko continuer photo bi rek teewul nag kenn ku nekk euh, am euh, maanaam mën nga am téere bi ñi kon ci béytu 63 64 bi euh, commencé woon nañ ci loolu mooy madd xasr ak tawasut kon alxawlu lii mooy bunt bi wax fil duuti ci xaraf bi nga xam dañ koy xëcc wal maqsuuri ak bi ñuy gàttal wal mutawassiti ak buy digg doomu madd mooy nga xëcc ko lu mat ñeenti xaraka wala juróom-benn maanaam boo doon wax maanaam abajadaha wa zaha maanaam wala abajadaha wa maanaam juróom-benni xaraka maanaam juróom-benni masque ku tegale woon abajadaha wa lu toll noonu diggante boobe mooy moom la ñuy wax almadul mushba madd bi nga xam ne si mooy madd bu gudd am bu ñu wax mutawassit mooy a ba ja da diggante bo xam da nga mëna a wax a ba ja da do gaaw lool do yeex lool moy tawassut qasr nak diggante bo waxe a ba a ba a ba kay comme liñ waxe ni kay jodo viens si manam nga xam ni lak yépp ñoko ko to ñoko ko tollool moy qasr kon li moy buntu bi wax ci xaraf bi ñuy madd mooy mamduud wal maqsuur xaraf xaraf bi ñuy gàttal wal mutawassit ak boo xam ne dañuy digg doomu léegi nag madd ñetti xaraf la am alif ak waaw ak yaa bu ñuy wax alif nag alif rek la ñuy wax moom alif foo ko fekk xarfu madd la waaw nag balaa nekk balaa nekk xarfu madd balaa nekk xarfu madd damma jiitu ko yaa balaa nekk xarfu madd kasra jiitu ko kon lim bëgg a wax mooy alif moom dara du ko jiit lu dul fatax kon léegi alif foo ko fekk xarfu maddin waliin xarfu maddin la waliin waaw ak yaa nag bala ñuy nekk xarfu maddin waliin waaw damma jiitu ko wala yaa kasra jiitu ko tey jii boo ñu woon yawma idin yawma idin tey waaw bi waaw duñ ko tudde xarfu madd xarfu liin lañ koy wax fii min bayni bayni yaa fii duñ ko xarfu madd xarfu liin la fii kon yaa balaa nekk xarfu madd rekk kasra da koy jiitu waaw balaa nekk balaa nekk xarfu madd damma jiitu ko alif nag moom alif nag moom foo ko fekk xarfu maddin walii ni kon moo tax ibnu barri wax ni wal maddu wal liinu maan wasfaani lil alifi daifi maanaam madd madd ak liin foo fekk alif neel xarfu maddin wa liin alif foo ko fekk rek neel xarfu maddin wal liin moo tax mu ne wal maddu wal liinu maan maanaam ñaari tur yi ñu ànd wasfaani ñaari wasfu lañ melaw lañ lil laazimaani yuy taqoog lil alifi daif li tax mu tudd mu tudd alifu daif nag day bañ nga jaawale koog hamza nga jaawale ko a ak i nuroo mais li am tikkante gi moom mooy euh, hamza alif nag moom daif la waaye waaw balaa nekk xarfu maddin wa liinin damma jiit ko yaa balaa nekk xarfu maddin wa liinin kasra jiitu ko bu fekkente ni waaw damma jiituwu ko xanaa fatxa jiitu xarfu liin rek ngay wax yaa bu fekkente ni kasra jiituwu ko xanaa fatxa ka jiitu loo tudde xarfu liin kañ lay tudd xarfu maddin wa liin yaa bu ko kasra jiitoo wala Euh, waaw damma jiitu ko moo tax mu ni summa huma fil waawi wal yaa i maanaam summa huma maanaam almadd wal liin googu mu waxoon fil waawi ci lu ci dana nekk ci waaw wal yaa waaye kañ mataa jamono boo xamee ni nacha ata ñoom ñaar sosu nañ an dammatin wa kasratin maanaam waaw an damma wala yaa an kasra kon alif moom foo ko maddu xarfu maddin wa liin yaa nag kañ lañ nekk xarfu maddin wa liin mooy waaw bu ko damma jiitoo wala yaa kasra jiito ko moo tax mun summa huma topp ñoom ñaar ñooñu fil waawi wal yaa yi mata jamono boo xamee ni nacha ata sosu nañ ñoom waaw ak yaa an dammatin gannaaw damma lan mooy sosu gannaaw damma waaw kon xarfu maddin wa liin wa kasratin lan mooy sosu gannaaw kasra yaa bu boobaa day nekk yaatim bu boobaa nekk xarfu maddin wali nii moo tax ñu tënk ko ci baatu nuuxiiha buñ la laajee xurufu maddin waliin nga ni mooy nuuxiiha maanaam waaw waaw nuu ak yaawu xii ak alifu haa xarfu maddin waliin buñ leen ko laajee mooy lan da nga naan mooy nuuxiiha parce waaw waawu nuu damma jiitu na ko yaawu yaawu nuuxiiha kasra jiitu na ko haawu nuu nuuxiiha eh, eh, alifu nuuxiiha eh, fat fatxa jiitu na ko léegi nag li tax ñu tudde ko li tax ñu tudde ko xarfu liin parce que dafa nooy googu nooy noor googu mu madd boo gis bu fekkee dafa jiitu sukun rek bokkatul man xarfu liin bu jiitoo sukun rek bokkatul xam nga astafa albanaati xam nga astafa la astafa albanaati waaye comme sukun tegu na ci alif ba amutul astafal banaati astafal banaati ala albanina ala albanina nga وجعلنا الليلة غيلا وجعلنا الليلة وجعلنا الليلة ولا الضالين غني ولا الضالين فالتقى الماء غني فالتقى الماء قل يا أيها الكافر قل يا أيها ال... كن حرف مدين ولين لو تخن تدي كون نوي جيم نوي موتاخ بوكو سوك بو فكنتي دافا جيتو سكون موم بوكوتول خلا واو وافعلوا الخير غيلا وافعلوا الخير ادخلوا الأرض ادخلوا الأرض وادخلوا الباب وادخلوا الباب قالوا اطيرنا قالوا اطيرنا غني قالوا اطيرنا كن حرف اللين لا دا فاللين نيك مدن واللين nooyaay googu mu nooy moo tax bu ko bu xarfu maddin wallin bu ngeen gis sukun tegu ca xamal ni loolu bokkatul xoola fii haadihi addunia nga ni fii haadihi dunia yutil yutii alxikmata nga ni yutil ala abdihi alkitaba ala abdihi alkitaba wa fasilatihi allati nga ni wa fasilatihi allati kon xorufu maddin wa liin bu fekkente ni sukun da jiitu daf cee bu boobaa bokkatul moo tax eh, dañuy wax ni ñaari sukun bu ñu dajee foo fekk ñaari sukun yu daje bu jëkk ba danga koy kasra maanaam hmm, lu demee lu demee ne sabbih isma rabbika nga ni lan sabbih isma rabbika sabbih isma rabbika sabbih isma rabbika ndax ñaari sukun daje nañ nga daal di euh, kasra ba ko jiitu waaye ñaari sukun buñ dajee sukun bu njëkk ba bu fekkente ni liin la da koy xasaf da koy dindi xam nga tey da amoon da nga comme par exemple comme yi ñuy wax rek wafaalu alxayra xam nga ñaari sukun daje nañ bu njëkk bi liin la xasaf ko wafaalul xayra wafaalul xayra xoola an itil ma euh, lu deme ne lu deme ne an an an ibudullaha an ibudullaha xam nga an ci ñi nga xam ñoy jàng an ibudullaha me bu dé war ci mom day top damay an ubudullaha nga ni an ibudullah qul qul udu allah qul udu allah kon ñaari sukun daje nañ nga kase wax qul ud'u allah aw udu rahmana aw idu rahmana bu dé war ci mom day dem ci qaida am rek qaida qaa'ida moom euh waxarrik li warsin kulla saakinin axirin saxiixin bi shakli hamzi waxdifu musila war si moom bépp sukun boo xam ne si sukun xayi la bu fekkente ne hamza daf cee tegu moo xam hamzatu wasl wala hamzatu qat'i day jël masque ak day day jël masque ak hamza bi jox ko sukun bi kon tey ji dangaa amoon xoola xaala tey ji boo amoon daraba nga ni yadribu boo ci defee lam looy wax lam yadrib xaraja yaxruju boo ci defee lam nga lam yaxruj léegi nag kon qaala yaquulu kon lam yaquul nga waroon wax kaana yakuunu lam yakuun baaca yabiicu lam yabiic nga woon léegi bi nga nee lam yak ñaari sukun daje na bu njëkk ba nekk xarfu liin ñu koy xasaf lam yaqul kaana yakuunu lam yakuun ñaari sukun daje na bu njëkk ba di liin ñu daal koy xasaf kon in saakina niltaqa yaksir ma sabaq wa in yakun liinan fa ñaari sukun buñ dajee rek kasraal ba ko jiitu waaye nag bu fekkente ni ba jiitu dafa nekk xarfu liin bu boobaa Euh, la ca gën a la ca yay mooy euh, nañ ko xasaf kon moo tax summa huma fi waawi wal yaa i maanaam madd wal liin ci waaw ak yaa mataa mataa jamono boo xam ni nacha sosu nañ am dammatin wa kasratin léegi nag xuraa yëpp daje nañ ni xuruf yii daal maddu tabii lañ leen di madd ñoom ñëpp da d'accord nañ ci moo tax wa siixatul jamii maanaam tëgginu wala xëcc mbooleem xuruful madd wa liin lil jamii ñeel njànkate alquran yëpp ñoom ñoom ñetti xaraf yooyu tu maddu dañ koy madd qadra maddiha al tabii kam madd maddu tabii madd nga xam ne si mooy tabiatul insaan kooku ñëpp d'accord nañ ci nuuxiha nuuxiiha doo wax nuuxiiha déedéet nuuxiiha wa siixatul jamici maanaam tëgginu mbooloom mbooleem ñetti xaraf yi lil jamici ñeel mbooleem quraa yi tu maddu ñoom dañ leen di madd qadra maddiha tabici léegi nag wuute baa ngi ca nag kañ lañuy kañ lañ ciy dolli nag kay moo tax mu ni wa fil mazidiyi wa fii mazid mazidiyil xilaafu kon alxilaafu wuute bi waqaa tàbbi na fil mazidiyi ci mëdd boo xam ne si mëdd bu ñu yokk bu ñu yokk la wa huwa moom yakunu wasatan dana nekk mëdd boo xam dafa diggu dóomu wa mushbaan dana nekk mëdd boo xam mëdd bu ñu suural fu ngeen dégg wa euh, mëddul mutawassit mooy boo xam ne si da nga mel ni a ba ja da مش بعنك أبا جا دا ها وا كون بنني حركتين موي أبا مانام أربع حركات أبا جا دا ست حركات أبا جا دا ها وا كون كون والخلاف ووتجي أمنا والخلاف ووتجي وقع أمنا في المزيدية maanaam la ñuy fi ma yokk madd bi moom fa la wuute bi am mais bu fekkente ni maddu tabii moom ñëpp ci d'accord xarakatayn la wa huwa yakunu wasatan mazid yi nekk wasatan dana nekk mushba kañ la mazid yi di am mooy ñetti xaraf yii nga di xëj benn bu ci hamza tegoo dañuy yokk madd ma bu ci sukun tegoo dañuy yokk madd ma bu ci euh, shadda maanaam shadda sukun da ngay wax ndax shadda sukun maanaam bu ci sukun tegoo wala sadda tegu ji bu boobaa da ngay yokk mëdd bi waaye eh, muy nag fa naafiun yushbiu maddahunna li saakini laazimi baadahunna maanaam imaamu naafi day day suural maanaam day yokk maddahunna hunna bi mi ngi dellu ci sala xurufu salaas waaw yaa eh, alif alif waaw yaa seen madd moom naafe daleen di suural da di suural li saakini laazimi li saakini ñeel sukun nga ca tegu al laazimi bay taqoog moom xam ne dafa am lu ñu wax eh, maddu laazim maddu laazim eh, maddu laazim nag dafa am maddu laazim kalimi ak lu ñuy maddu laazim xarf yi mooy mëdd boo xam dafay taqoog moom maam mëddul laazim kalim ak madd laazim euh, xarf yi mëddul laazim kalim am na mu xafaf am mu saqal mëddul laazim xarf am na mu saqal am na mu xafaf léegi mëddul laazim kalim mooy alif wala waaw wala yaa sukun tegu ca sukun tegu ca da nga koy tuddee maddul laazim ndax li waral madd gi dafa taqoog moom lii waral madd gi tey ji dafa taqoog moom mënuñu tàqali ko benn yoon li tax ñu tuddee ko kalim yi dafa nekk ci kalima dafa nekk ci baat léegi nag sukun boobee bu fekkente ne shadda la nga tuddee ko mu saqal kon bu nee wala daalliin عليها صواف ولا آمين البيت الحرام الذكرين ما أنا بفكر تاني مدري دفع سبدا موشي تاغو بابارا نكتي أبات دغنان مدن لازم كلمي مثقل لو تخنغني مدن لازم باسكو سكون جيت جيت موم لازم لتي تيجي إياك نعبد وإياك نستعين خبو سكون يونا قناو ياجي الحمد لله رب العالمين سكون يونا قناو ياجي وين تي بوني ون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم كن خولا كاي جي بيغا ني بيغا تي تخاوي سكون بي نيونا مي باغا كونتيني سكون با دبنا كون مد بوبو دو لازم إياك نعبد وإياك نستعين سكون نيونا غناو يا واي نخ سكون بوبو دا فا تخاو موم دا نان دير سكون بي ليغا تخاو مو نو تاي بوني وون إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا سكون بلاي كون سكون بوبو لازم ولا الضالين نك بوجي تخلي ولا الضالين امغوك ولا الضالين امين باتاي سكون بانجي يوادون من حد الله باتاي بوش تخاوي تي يوادون باتاي مانغاتي عليها صوافه ولا آمين البيت حق كن مد بو فكنتني سكون دا تياتيكو مانام شد دا تياتيكو مو نيك تي بات بو لازم لي تخني تي لازم باسكو لي ورال مد غي دا فا موم كلمي لي تخني تي كلمي دا فا نيك تي كلمه لو تخني تي ديكو مسقال ندخ دا فا tey jii boo ni woon boo ni woon kaaf haa yaa ayn saad xam nga kaaf maddun laazim parce que kaaf gi sukun ba gi ñëw gannaaw gannaaw alif gi dafa taqoog moom waaye est-ce que ci kar ci karima la nekk déedéet ci xaraf la nekk kon dañ naan kii maddun laazimun xarfiyun muxaffaf parce que amul shadda waaye xool tey jii boo ne taasim miim xoola xam nga tey siin siin gi tey parce que siin miim da nga naan siin gi da nga naan maddun laazimun maddun laazimun xarfiyun lu tax nga ne xarfiyun parce que ci xarf la nekk musaqal parce que dafa am shadda la ci tegu dafa shadda xam nga bi ne eh, taasim siin gi moom maddun laazimun xarfiyun musaqal lu tax nga tuddee ko maddun laazim parce que sukun gi dafa taqoog moom lu tax nga tuddee ko xarfiyun parce que ci xaraf la nekk lu tax nga tuddee ko musaqal ndax la ci dégg dafa sàdd miim miim lan la maddun laazim ndax sukun gi dafa tee taqoog moom lu tax nga tuddee ko xarfi ndax ci xaraf la nekk lu nga tuddee ko mu ndax la ca tegu saddawul kon madd madd dafa am madd laazim mooy li waral madd gi dafa taqoog moom du tàqalikoog moom mukk kon nel maddu laazim bu fekkente ni nag la waral madd gi te taqoog moom dafa nekk ci ab baat nga tuddi ko maddu laazim kalimi bu fekkente ni loolee waral madd gi dafa shadda nga tuddi ko musaqal kon alayha sawaafa loo koy tuddee sawaafa lan moo waral madd waaw gi parce que shadda gi ci tegu ci fan la nekk ci kalima la nekk ko da nga naan sawaafa maddun laazimun kalimiyun mu saqal parce que dafa diir wala amina wala amina amina aabi da nga koy xëcc da koy xëcc lu tax euh, xëccu maddu laazim la lu ko waral ndax li waral maddu gi dafa taqoog moom léegi lu tax nga tuddi ko kalimi ndax ci kalima la nekk lu tax nga tuddi ko mu saqal ndax li li waral maddu gi dafa sadda tey ji xoola boo ne xaamim ayn qoof xam nga xaa moom kenn du ko mëdd Hakian kenn ko mënd miim dang koy mënd parce que sukun gi waral mënd gi dafa ak mom mais lutax nga tuddi ko parce que ci harf la nek mu nga tuddi ko parce que la waral mënd gi du shadda ab sukun Ain, ayn ayn mom tam maddu lazim la maddu lazim ko koy def Euh, wuute sax am na ci waaye li gën a li gën a li gën a wóor mooy mooy dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy boole ci maanaam madd yi am ñoo xam dañ ko boole ci dañ ni ci euh, maddul liin la ñi ni maddul laazim lañ koy def moo tax boo demee charte bi day wax naan wa mudda lahu inda alfawatihi mushbian wa fi ayni nil wajhaani gis nga وفي عين الوجهان والطول فضلا مانام كون بورون جانغ ها ميم ها موم آه، امول مد ميم دانكو داغا ميم مد لازم حرفي مخفف لي تخ مد لازم نخ لي ورا المد غي دا تاخوك موم لي تخ حرفي تي حرف لا نيك lu tax nga ni mu xafaf parce que la ca teg la waral ma digg du shadda ayn siin ayn gi da ngaan maddun laazim lu tax nga ni maddun laazim li waral madd gi dafa taqoog moom lu tax nga tudde ko xarf yi parce que ci xaraf la nekk lu tax nga tudde ko mu xafaf parce que la ca tegu shaddawul siin qoof siin nga ni xarfu maddin laazim parce que li waral madd gi dafa dafa taqoog moom lu tax nga ni mu xaf lu tax nga ni xarf yi parce que ci xaraf la nekk lu tax nga ni mu xafaf parce que la ca des la ca tegu saddawul boo nee taasimiim ta léegi dafa am lu ñuy wax xayun tahur ak naqasa asalukum maanaam xurufu naqasa asalukum naqasa asalukum maanaam fawaatixu suuri alif laam miim alif laam sa alif laam miim saad alif laam re yooyu ya ca ya ca nekk xurufu naqasa asalukum xamal dañ koy mëdd nuun nuun dañ koy xëcc qaaf saad ayn siin laam kaaf miim mais bu fekkee dafa bokk ci xayun tahur nag kenn du ko mëdd xayun tahur comme hamim habi kendo du ko mënd xaare ngay wax mim bi na nga ni mim ya gis nga yasin ya rek ngay def do ko xëcc taha ken du mënd taagi ha kaf ha ya ken du ko mënd ra ken du ko mënd motax ci bey bi ñaan naqsu aslakum bi maddin qad jara wa xayu rahtin la yumaddu faqsura boo ko wayu dañaan naqsu aslakum xurufu naqussu aslakum dañ koy mëdd waaye xurufu xayu rahtin kenn du ko mëdd naqussu aslakum bi maddin qad jara wa xayu rahtin laa yumaddu faqsura kon kon fawaatixu suwar yi xuruf yi ci sawaati xawaati soxor suwar yi moom dañ koy mëdd bu fekkee ne ni sukun moo ca tegu moo tax برام ومد له ومد للسكون ومد للسكون عند الفواتح مشبعا ومد له عند الفواتح مشبعا وفي عين الوجهان ما نم عين امنا نياري انا نين دنجو دف آه، لين نين يدفكو آه، مد طول واي شاطي بينا وطول فضلا لكنك دفع عملون يوخ مدن لازم كلمي مخفف تي انذرتهم انذرتهم لوتخ غني انذرتهم مد لازم لوتخ مو نيك مد لازم نخ سكون مو تي تيغو تلو تاخليكو موم لوتخ ديكو كلمي باسكو تي كلمه لا نيك لوتخ ديكو مخفف نده لا تي شدول هؤلاء إن كنتم إن كنتم مد لازم parce que euh, maddul laazim la dafa taqook moom dafa taqoog moom nekk euh, kalimi yi dafa nekk ci kalima mu xafaf ndax li waral mëdd gi euh, li waral madd gi maanaam du du sadda ashfaqtum ashfaqtum maddun laazim la ndax li waral ma digi dafa takko ak mom kalimiya ndax ci kalim lay ci baat la nek mukhaffaf ndax la waral ma digi saddawul antum ashad antum antum li waral ma digi dafa takko ak mom ci fan la fan la ma digi nek ci baat la nek lu tax ñu tuddee ko mu mu mu ndax saddawul kon nak kon noté len limay bëgg wax ngeen koy noté kon madd dafa am lu ñuy wax maddu tabi'i maddu tabi'i mooy madd boo xam ni sukun teguwu ca shadda teguwu ca hamza teguwu ca ko mooy maddu tabi'i la léegi nag bu ci hamza tegoo bu ci hamza tegoo moom la ñuy wax maddul far'i am nag lu ñuy wax al maddul laazim maddul laazim mooy dafa am maddul laazim kalimi yi am maddul laazim xarf yi bépp maddul laazim madd boo xam ne sukku na ci tegu mu nekk ci baat mu nekk ci ab baat xamal ni tudde ko maddul laazim kalimi bu nekkee ci xaraf tudde ko maddul laazim xarf yi kon nuun qaaf laam siin maddul laazim bu nekkee ci baat tudde ko maddul laazim kalimi bu nekkee ci xaraf tudde ko maddul laazim xarfi la waral mëdd ga nag bu fekkente ni dafa shadda tudde ko mu musaqal maddul laazim kalimi musaqal bu fekkente ni eh, loole du shadda neel maddul laazim kalimi muxaffaf bu fekkee ci xaraf la nag neel maddul laazim xarfi bu fekkente ni la waral madd ga dafa shadda la tuddi ko maddul laazim xarfiyin musaqal bu fekkente ni du shadda tuddi ko maddul laazim xarfi muxaffaf léegi lan mooy misaalu al maddul laazim al kalimiyi al mu al musaqal al maddul laazim al kalimiyu al muxaffaf mooy madd goo xam ni la waral madd ga dafa sukun ba pare nekk ci baat ba pare euh, nekk ab sadda comme wala daalliin parce que daa gi yaa li waral xëcc gi mooy saddaga li laamu liin yuwaadduuna li waral madd gi mooy daal gi nga xam dafa sadda moo tax ñu madd waaw gi madd euh, alif gi ñu ko def madd gudd kon comme dafa nekk ci baat mu ci di ko kalimi comme li waral ma dëgg shadd la ñu tuddee ko mu saqal xoola ashfaqtum xam nga maddul laazimi ngi nii nekk ci kalimi waaye lan lañ ko tuddee mu xaffaf ndax li waral madd bi du du shadd azakarayni azakarayni madd la boo xam si laazim la nekk kalimi yi ci ci ci abbaat nekk mu saqal ndax li waral madd bi lan la euh, dafa shadda bu fekkente ni nag maddu lazim dafa nekk ci xaraf comme yooyu comme xurufu naqus asalakum naqasa asalukum bu fekkee ne du way nga ni naqasa asalukum seen lem gi wàññiku na kon naqasa nuun qaaf saad yëpp maddun lazim xarf yi la muxaffaf asalukum naka noonu ayin waaye yii yëpp la ca tegu bu fekkente ni dafa sadda tudde ko maddul lazim mu saqal bu fekkee la ca tegu dafa saddawul tudde ko maddul lazim xarfi muxaffaf loolu daal mooy li nga xam moom lañ doon doon indil ci ci madd kon wal wal liinu maan wasfaani la lil alifi daifi laazimaani maanaam alif mi nga xam ni si dafa lompañ foo ko fekk rek danga naan alif day xarfu madin wa liin la waaw nag kañ ngay wax ni xarfu madin wa liin la damma jiitu ko yaa kañ ngay wax ni xarfu madin wa liin tudd mooy bu fekkee kasra moo ko jiitu kon waaw bu ko bu ko fatxa jiitoo maddu liin képp ngay wax yaa bu ko fatxa jiitoo maddu liin képp lañ koy wax alif nag moom foo ko fekk xarfu madin wa liin kon li lañ amoon loo xam ne si luñ leen doon indil ci baabul maddi bu ko ñaan yàlla may ñu dégg ak topp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waa xam naa bu ñuy ñëwaat ñi danañ maanaam jaaraat ci euh, ñaari bay di mujj bi ndax biñ ne fa naafixun yushbiu maddahunna li saakin lazim baadahunna eh, am na benn bayit bu ci tegu boo xam ne si moo waroon na mujj ci darsi bi waaye na dañuy bañ maanaam temps bi gën a bare muy diis ci yenn téléphones yi loolu moo tax ñu yemale ko fi tey explication yi xaw a bare ñaan yàlla may ñu dégg ak topp ñu ngi nuyu ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf